asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi mbokk yëpp di leen siyaare bu baax a baax ci turu Serigne Abibou bi nga xam ne moo njiital Touba ci kanam ak mbooleem kuréel gi yëpp di am mbégte bu baax tey fii ñëwaat ngir waxtaane jaayante boobu nga xam ne Serigne Abibou Mbacké woote na ko jëme ko ci mbokki taalibe yëpp muy liggéey yoo xam ne dañ ko bëgg a fas yéene def tuddee ko jaayante waajal màggal Touba 2024 Touba Ca Kanam nag eh, ku nekk xam na ne day liggéey ci tubaa at mi yëpp waaye nag mu am pas-pasum nag fii ak màggal mu tànn yi nga xam ne dafa bokk ci barab yi nga xam ne buñ ci taxawee jaayante ko liggéey ko dana jàppandal bu baax a baax màggal gi yooyu nag ñu tànn ci juróom benn ni eh, liggéey yoo xam ne gis nañu ne buñ ko defee eh, bu ci mbokk yëpp jàppee màggal gi mën naa jàppandi incha allah yooyu nag buñ ko tënkee rek juróom benn ni liggéey la yoo xam ne façon ko ñuy def ci màggal gi moo mm, xam ne moo nañ jagleel jaayante bi bi ci njëkk mooy defar yoon yi ñaareel bi mooy leeral Touba ñetteel bi mooy setal tuuba ñeenteel bi mooy naatal tuuba juróomeel bi mooy jàpp ndal ndoxum naan mi ci Touba juróom benneel bi mooy xeex mbënn mi ci Touba yooyu yëpp nag buñ ko faram-fàccee rek ngir mbokk yi xam ne kat yiñ ci tànn barab la yoo xam ne barab yu critique la yoo xam ne nii mooy yi gën a jàmp buñ ca noppee nag door a wéy ci ci topp bu dee ci wàllu réalisation defar yoon yi tànn nañu juróom benni barab yoo xam ne war nañ ko defaraat bi ci jiitu mooy rajo bu ñu war a def ci corniche xayra bi fi tolloog station SGF ak corniche daal mbindam bi fi nga jàdd jël tëb jëm Kër mu Mountakha ak station Shell bi nekk ci daaru yoon daaru musti naka noonu tëri bi nga xam ne moo bàyyeekoo daaru musti dugg jëm hôpital jéemul ba tey it eh, gaar bu ndaw li jóge jumaa ja romb ko sëñ Mourou Mamoun Niang dem ba ca station bi ci gaar bu ndaw bi ci topp mooy pawaas bi mu war a def ci li dalee hôpital Ndaamaatu jëm ci corniche ba ci wàllu ndoxum naan mi ñu am pas-pasub réhabilité lu toll ci wala maintenance lu toll ci juróomi forage ba nga xam ne lépp loo xam ne moo doon gàllankoor ñu mën caa jëfandikoo ci wàllu ndox ma ñu jàppandal ko ba muy dox di normal ni ñu ko yittewoo ak it nag fas ne taxawal ñaari forage yu bees yoo xam ne dañ koy gas yokk ko ci réseau bi ngir mën koo gën a dooleel ba tey itam dimbali ñi nga xam ne ñoo yore wàllu ndox mi ñu mën a segmante lu toll ci fukki quartier juróom ba fukki quartier ñu segmenté ko ak nag jàpp ci li nga xam ne mooy réparé fuite yi nga xam ne ñu ngi koy jàmbat te ku ne xam ne ne réalité la bu bu doy ci liggéeyam ndox mi ñu jàpp ca réparation bu lañ ca man suñu kéem lay kàttan ba nga xam ne réseau bi li ñu ci mën a def ngir mu mën a nekk réseau bu normal danañ ko def kon yooyu mooy yi nga xam ne moom la ñu fas yéene def ci wàllu ndoxum naan mi bu ñëwee ci mbënn mi it am nañu programme def canalisation ci quartier Darou Khoudoss ak Darou Khoudoss 2 mooy drainage bi ñu bëgg a def ci gaar bu bi mooy am nañu ci wàllu mbënd mi li wër jumaa ji nañ ci programme def fa lu toll ci fukki forage ak juróom forage nag rabattement lay doon mooy forage xam ne mooy manque ndox mi di ko génne ndoxum nab bi ak yit li wër jumaa ji conduite dafa nekk ñu jëm ko soppi ba nga xam ne su boobaa fuite bi nga xam ne moo daan génn ci conduite bi dugg ci biir nab bi ak ndoxum taami bu ci nekk dañ ci indi ay pexe ba nga xam ne ñaar yëpp bu dajee incha allah jàpp nañu ne buñ ko sotteelee duñ ko bëggee yàlla mën naa def nab bi wàcce bu baax a baax a baax. danañ yittewoo ñetti moto pompe électrique yoo xam ne day nekk au bi ñu mën koy euh, jëfandikoo ngir mën a pompe ndox mi mu gaaw a dem naka noonu tam danañ yittewoo lu toll ci 4000 mètres tuyau PEHD yu mag yooyu ñu utiliser danañ yittewoo tam ba léegi li ñuy wax euh, ñeenti junni ci tuyau flexible wala tuyau anaconda yoo xam ne mooy yu mag yi ñuy utiliser ngir mën a pompe ndox mi mën a jóge ci réseau yi mën a jóge ci Fimta dem ci réseau yi te itam ñu xayma ne lu mu néew ne danañ teewal toll ci quinze mille litres de carburant danañ koy teewoo ci ci ci liggéey boobu ak it quatorze moto pompe yoo xam ne day nekk yoo xam dañ ko teg ko teg ci fi ndox mi di taa mu ko mën di pompe di ko ci ci réseau bi danañ ci soxla quatorze moto pompe bi ñu jógee foofu yi dem ci nit nettoiement ak reboisement moom tam ñu gis ne Touba laaj na ko bu baax a baax liñ ci programme yi nag lu am solo la waaye lu bëri la mooy daal fas nañu yéene. penc yu mag yëpp ñu jëmbat fa ay garab ak it nag am na euh, plan boo xam ne incha allah rabbi euh, ñu ngi ciy liggéey ak waa ministère de l'environnement bañ jox jox ñu seen kàddu ne dafa am lu ñuy wax journée de reboisement national ñu war koo def la 4 août su ñu Touba lañ koy lancé incha allah rabbi booba nag bëgg dañ cee yóbbaale waale jëmbat ay garab li tàmbalee ci garab Darou Mousty boo ko daal Seexul Xadim ndeyjoor ak càmmoñ bu ñu fa jógee coordinateur daara Jolof bëgg si Abdou Karim Makaarim Axlaax yoonu Ndindi fas nañ kenn jëmbat moom tamit càmmoñ ak ndeyjoor foofu sax incha allah fa la ñu programmé def fa cérémonie ba incha allah xam ne ñëpp koy teewee bu soobee yàlla. naka noonu tam am nañu pas jëmbat lu mu néew néew 28000 garab balaa màggal incha allah rabbi ci dëkk bi mooy def ko ci kër yi def ko ci mbedd yi def ko it ci penc yu mag yëpp. naka noonu tam de bëgg nañu tamit li ñuy wax arbre fruitier nga xam ne leen garab goo xam ne day am meññet. bu ko defee fas yéene gu nekk ñu fexe ba mu am garabu mango wala garab goo xam ne daal day nekk euh, euh, joxe euh, meññet loolu tamit lu jara lu jara bàyyi xel la bu ñëwee ci wàllu nettoiement dañ ci yittewoo baax a baax xëy na ay matériels yu bëree bëree yu mel ay camion yu mel ne ay ay ay ay jumtuwaay mbalit yooyu yëpp ñu koy teewoo moo tax amoon nañu programme lu mu gàtt gàtt fii màggal ñaar fukki quartier ñu bare ko ba mu set defagoon nañ ci juróom-benn quartier. kon feeg màggal nga xam ne des des na fukki semaine ak ñeent bëgg nañu àjjuma bu nekk ñu woote mbale général ci ab quartier nga xam dañu fas yéene la fa nekk lépp bari ñu dindi ko boo set wicc dindi di dindi sën ya di ko def noonu bu màggal gi jeex xam doon lu mu gàtt gàtt danañ ci def fukki fukki ak ñeent loolu nag buñ ci dollee li ñu doon séddale fan yi muy bagage yi mbale matériel di ko jox soxna yi nga xam ne ñooy setal koñ yi mu doonoon ay ay ratu doonoon ay ay ay ay ay ay bulus yu ñu sol ak yu mel noonu yooyu yëpp day jàpp ci mbalit mi ba nga xam ne su boobaa yëpp dana mën a mel ni ñu ko bëggee. soxla nañu toll ci bac a ordure métallique soxla nañu toll ci fanweeri unité bu dee poubelle réglementaire tamit soxla nañ ci lu toll ci 1000 unité bu ñëwee ci brouette yi soxla nañ toll ci 1000 unité pelle yi ak seeni manche soxla nañ ci lu toll 1000 unité ratu yi mille unité bale yi 1000 unités ak tamit nag juróomi camion benn yoo xam ne moom la ñuy transporter mbalit mi di ko yóbbu ci fañ ko war a sotti bu ñëwee ci commission leeral it gis nañu ne war nañ cee installé lu toll ci juróomi junni làmp yoo xam ne e, junni yi 150 watt la ñeent junni yi nekk 100 watt parce que ñu des ko yéen installé ci lu toll ci fanweer ak juróom-ñeent ci ay barab yu wuute. ak it nag réparation yi nga xam ne yoo fi nekkoon ay lampes yoo xam ne dafa am yu défectueux yoo xam ne war nañ ko réparer ak euh, changé yi nga xam ne moom ay pièces yu ci war a soppee di wax ne rek xëy na loolu tamit dafay laaj ay jumtuwaay yu yu bëri yu diis ndax liggéey la boo xam ne day wéy ak ñun at mi yëpp ñu gis ne kon li ñu soxlawoo bokk na ci ab nasel nasel bu beneen boo xam ne bu bees lay doon ndax ñaar yi fi nekk bu ñu bëggee boolee liggéeyu montage bi ak liggéey réparation bi gis nañu ne liggéey bi mën naa yeex kon bokk na ci li ñu programme mooy wut beneen nasel bu bees ak it nag yokk ci emploi yi ñetti emploi yoo dañ leen jël di leen fay pendant liggéey bi nga xam ne dañ koy ànd ak ñoom tamit nag fàggu ay pièces détachées yoo xam ne dañ koy denc ndax lépp loo xam ne mu jëm ci wàllu recensé recensé pièces yi saa bu ko soxlaa rek mën a jàpp nekk suñu loxo kon daal tënk rek lii mooy juróom benn yi nga xam ne moom la ñu tànnoon wala juróom benn barab yi ngir def fa liggéeyu toll nii teyit nag jublu ci rek fas yéene daal balaa màggal gee ñëw euh, ñëpp bu ñu ñëwee euh, lépp loo xam ne nekkoon na gàllankoor yu bàyyeekoo ci yu mel nii ñu xam ko ci wàllu ndoxum naan ci wàllu ndoxum taw bi ci wàllu éclairage public ci wàllu reboisement ak ci wàllu nettoiement ak ci defar yoon yi li lépp nag ngir mu mën a jàpp jàppandi euh, yéen mbokki taalibe yi ci seen loxo la nekk seen jaayanteeg Serigne Touba Serigne Abibou Mbacke mi ko yëg. woote ko njëkk cee def loxoom Touba Ca Kanam yëpp jàpp ko ci fekk ko ci ak bokk tab yi bëree bëree bëri ñi ngi tàmbali fii di ci def seen loxo kon ñooñu gën a woote daal xam ne liggéey bi rek moo tax a jóg ngir màggatu Touba 2024 mel ni ñu ko bëggee ba nga xam ne képp kuy ab murit boo ñëwee ci dëkk bi xam ne taalibe Sëriñ taxaw nañ taxawaay boo xam ne lépp lu fi noonu ci jafe-jafe wàññeeku na bu baax a baax a baax kon ñoo ngi ci woo ñëpp di tallal loxo ñëpp bàyyiwun kenn yal na def ñu àgg ci jàmm lépp luñ ci bëgg ci aw yiw yàlla nañ ko am ci te mu nekk mbégum Sëriñ Tuubaa tey nekk njëriñu jullit yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bu kenn ko defee lam lam man lu mu tuuti day mu jàgg nekk dara juwaay tuwaay ji aci murid lañ ko xool lépp luy suñu aci ak murid buñu xaar ku ñu defal dara nañ xam ne murid ñoo ko defal suñu bopp ñoo ko la ci ñëw ku am xeer indi carrière ku am tool boo xam carrière boo nañ ko joxe ngir suñu tuwaay ñu gas ko ku am suuf su rafet su xam nga ko indi ngir suñu indi ko ku am ciment indi ko ku am fer indi ko ñu ngi koy wax usine yeeg ñu koy jaay ñu yàlla may doon ñëpp ak ñu yaakaar suñu tuwaay maa ñaan ci bakk Seex Xaadim képp ko def yàlla sa yoon teg ëllëg ay jamono ci liggéey bi sëriñ Bamba bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah na ñëpp taal sëñ bi ñaan amin ak bam tuwa